ami internetu AG Pro TV ñu ngi amaat contentement ak mbégte bu baax a baax a baax di dajawaat ak yéen ci seen info du jour waaye nag képp rek koo xamante ni abonné goo ci seen bi ñu lay wax nga daal di daw abonné rek te activer li nga xam ni rek moom mooy cloche de notification yi ngir ngeen di mën di am suñu ay vidéo à temps dañ koy rek daal di doorewaat ak la nga xam ne rek moom moo di coupe du monde 2022 bu leen di am fële ca Qatar. Euh, bésub tey nag ci nga xamante ni moom moo doon Sénégal doon daje ak rek ki nga xam ni moom moo nekkoon équipe boobu di Équateur euh, ñoom nag mas ba nekkoon mas boo xam ni euh, mas de qualification la woon ci ñaari équipe yi ba tax na rek mas bi nekkoon mas bu am solo ci ñaari équipe yi kii di Sénégal ak ki nga xam ne rek moom moo di Équateur waaye nag tey nag ki nga xam ni moom moo di Sénégal rek moom moo daal di am ndam ci kaw Équateur par deux buts un rek mu nekk loo xam ne des ni ak mbégte boo xam ne rek moom la Sénégalais yi daal di am ci ndax Sénégal euh, daal dina rek euh, def exploit bu ama am solo waaye bi yooyu nag ka nga xam ne rek euh, moo ko daal di dugal bokk na ci planti boo xam ne des ni rek nga xam ne moom moo di Ismaïla Sarr daal dina ko créer rek am ko daal di koy dóor daal di koy dugal waaye ca naka noonu rek ci leen daal di dem ca mi-temps ba dellu si ñi nga xam ne rek ñoom ñooy waa Équateur ñoom it daal di égaliser mu nekk un but à un ñu teg ci ay simili yu tuuti rek ka nga xamante ni nag moom moo di Kalidou Koulibaly ci centre boo xamante ni rek kii di Idrissa Gana Gueye daal dina ko def rek moom Kalidou Koulibaly moom nag di capitaine équipe nationale du Sénégal daal di dugal deuxième bitu Sénégal bi léegi nga xam ne moom moo tax rek euh, Sénégal daal di gagné ki nga xamante ni moom euh, ni moom moo di huitième de finale ya ca coupe du monde 2022 di amee fële ca Qatar euh, mu doon loo xamante ni mbégte la ak bànneex ci tous les Sénégalais waaye nag ci Afrique gépp la ndax nag exploit la boo xamante ni exploit bu ama am am solo la kii rek di Alioune Cissé daal di amati ndam lu rëy rëy rëy ci li nga xam ne rek moom mooy la moom moom la def tey ji lee ndax nag moom Aliou Cissé moomee lee fàttaliku leen rek korog maa leen di wax naan leen moom rek moom mooy coach bi nga xamante ni africain la ba pare dem ci coupe du monde ñaari yoon daal di cay am ndam tey ji nag mu daal di amal ndam muy troisième victoire boo xam ne rek Euh, costu africain daal dina ko exploité ci li nga xam ne moom mooy coupe du monde mu doon lu ama am solo euh, ngeen xam ne nag euh, kon nag ñi nga xamante ne rek ñoom ñooy kosu africain yi vraiment ñu ngi leen di commencé wekk ak di leen jox seen cër di leen bàyyi xel waaye ci loolu rek mu daal di amat loo xam ne rek moom la ñuy xaw a naqarlu lu tuuti rek ndax rek ki nga xam ne rek moom moo di Idrissa Gana Gueye daal nañ ñoo xam ne rek ni match bi di ñëw nag ci huitième de finale yi du ci mën a football ndax nag moom nag dafa am rek li nga xam ne moom mooy deux cartons jaunes ba tax na rek euh, match bii di dikk rek moom Idrissa Gana Gueye du ci daal di bokk kon nag loolu moo gënoon a fes ci li nga xam ne moom moo di xibaar yi euh, ñu leen jox dig daje ba beneen yoon incha allah di ko sàkku ci yéen.